salaamaaleykum ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal mm, di ñaan yàlla suñu kàddu yi fekk leen ci jàmm doonte jamono yi ñuy dund jamono yu jafe la pour dund ci jàmm ndax kenn ku ci nekk xam nga li xew ci réew mi te mooy noggatu gi fi nekk ak jaay doole gi nga xam ne ñi nekk ci bopp réew mi ñoo ko fas yéene yore réew mi léegi ndax Euh, génn gi askan wi génn ci ñoom ba set wicc ndax seeni jëf ak seeni wax yu bon loolu nag tax réew mi nekk ci ay jafe-jafe yu jéggi dayo yoo xam ne euh, jar na kenn ku ki nekk ñu taxaw def ci seetlu tey nag dama dégg nga maam def live en même temps di ko def ci TikTok bi nga xam ne booba ba léegi nekkuma ci woon waaye am ñu bare bare bari ñoo xam ne dañu ma conseiller digal ma ndax it nag xeex bi ñoo ko bokk dama nekkoon ci fi nga xam ne mooy YouTube bi laa nekkoon ci page bi nga xam ne mooy les activistes sénégalais foofu lañu faral di def suñu ay waxtaan di ko def ci Facebook bi surtout Facebook man laa gënoon a xam euh, tey nag euh, jamonoy dox ba ñu bari na ma daal bu gi sañoon sa waxtaan yi ngay def ak yëpp ndax léeg-léeg sax am ñu ko dagg-daggee dugal ko TikTok waaye bu gi sañoon nga ubbi compte TikTok di ko fa dugal di fa def yenn yi tamit ndax am na ñu bari ñu nekk tiktok ñoo xam ne xëy na ñu ci say waxtaan te njor nañ ne xëy na boo fa demee di wax ak ñoom mën naa am nga am ci ñoo xam ne daañu dégg li ngay wax ba mu njariñ kon loolu moo tax ma yàgg bañ nag ne du dem tiktok ndax xibaar yi ma am tiktok daal mooy am poo am caaxaan werante dof dof loog lu ne daal dégg naa ko ndax loolu laa dégg ñu koy wax waaye ñu ne ma nag ndokk loolu ñu la wax ne moo fa am am na fa waaye leneen am na fa waaye lu mënti xew a ah, ñun ñi lay suivre ci Facebook bi ak YouTube bi gis nañ ne xëy na boo fa demoon loolu ngay wax ne wax nañ ne la moo fa am ah sa wax ak say jëf xëy na foofa mën naa am mu soppi ñenn ñi ma xam ne tamit comme jubluwaay bi mooy fexe ba defar jubluwaay bi mooy fexe ba euh, ñun ñëpp ñu dimbalante laayante biir kenn ku ci nekk li nga xam nga indi ko waxtaane kook sa morom ba. jariñ mën a am mais jariñaate di jariñu aussi ci yéen kenn ku nekk di jariñ sa ma xam ne dëgg mooy dëgg te lépp rek ngir bëgg Sénégal gi ñu bokk jag moo tax ñu di ko def képp nag amul leneen Sénégal gi ñu bëgg mu jag moo tax ñu di ko def may ñaan waa TikTok di leen wax ne aussi buñ ko mënee partager ñu partager ko parce que man ma lu bari TikTok maa ngi soog a dugg TikTok ci dëgg-dëgg ku ko mën a partager nga partager ko ci TikTok bi xaw ma nu ngeen koy defee ma sama sama premier live TikTok tey la sama premier live TikTok tey la donc xaw ma nu ñu koy defee donc actuellement nii maa ngi ci TikTok bi maa ngi ci Facebook bi en direct maa ngi ci YouTube bi en direct donc maa ngi ci trois plateformes YouTube TikTok Facebook loolu lépp nag ngir mën a àgg ci askan wi li may wax àgg ci askan wi bu ci njariñ amee ñu jël bu ci njëriñ amul ñu teg ko fële bu ci njuumte amee ñu jubbanti ma. bu ci loo xam ne jàpp nañ ne dëgg amee dañu jàpp ne bu ñu ko jëlee mën na leen a jariñ jariñ ñu ñun ñëpp ba Sénégal jariñu suñu téye ndax plateforme yi réseaux sociaux yi loolu képp la kenn mënul taxaw ne maa am dëgg kenn mënul taxaw ne maa xam kenn mënul taxaw ne mën a mën a mën a déedéet da ngay indi sa morom indi ñenn ñi duñu indi waaye ñi ngi jeex ak dégloo ko xool la leen jariñ ñu jël lu leen jariñu ñu bàyyi lu ñu ci gëmul ñu teg fee luñ ciy wedd ñu wedd ko lu ñuy indi comme lay ñu indi ko comme lay Sénégal googu lañu bëgg Sénégal goo xam ne kenn ku ci nekk da am sañ-sañu wax sa xalaat waaye booy wax sa xalaat wax bi nag na ko yéene bu rafet ak defar tax a jóg doonte sax la ngay wax muy sa xalaat mën naa bañ a nekk dëgg wala mën naa nekk njuumte loolu amul solo li am solo mooy yéene bi ngay fas ki sa xol ne li may wax kat dama koy wax ngir njort ne bu ma ko waxee dana jariñ Sénégal dama koy wax ngir réew mi baax dama koy war ngir ñu suqaliku dama koy war ngir ndóol jóge ci réew mi dama koy wax ngir ànd bi ñu war ànd ñun Sénégalais yëpp ànd nekk benn te duñu waasoo amul pël joolaa sooseeg mandeng ak wolof amul li am ay Sénégalais loolu lépp am na waaye dañoo war a ànd ci suñu wuute googu nekk benn yëkkateendoo tegoo tegoondoo tabax réew mi ci bëggeel goo xam ne bëgg nañ ko réew mi waaye réew mi mënuñu koo tabax te bëggante mënuñoo bëggante te xamante wuñu mënuñoo xamante te xam-xam teewul football bi baax na làmb ji baax na euh, way yeeg Youssou Ndour rek yëpp cappax-cappax jeeg lépp rek musique beeg rab yeeg lu ne am na ci réew mi lu ne toog ci télé yi jël Pape Cheikh Mbaye Pape Cheikh xawma lan mu jiite weeru koor yëpp toog ku nekk di wax ci diine la la kenn ku nekk yooyu yëpp ok waaye lum ci war a def pour mu jariñ il faut ko mu teggu ci xam-xam yàlla ci bopam mo jàngale yàlla ci bopam moy borom xam-xam bindu doomu adama ci xam-xamam wàcce doomu adama fi ci xam-xamam yon bind ay yenen doomu adama def len ay yenen wàcce len ci xam-xamam tibbu ci xam-xamam bobu mom borom bi subhanahu wa taala am ñu mu ko wahyu yu yenen yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam mo ci mujju lu jiitu moom aadama ak awala njëkk a wàcc yonent yi di wàcc jamono bu ne ngir bëgg lan xam-xam bi mu xam moom yàlla mu àgg ci askan wi ndax kenn du defar am réew nit ci boppam du defaru sans xam-xam li ma leen njëkkee xirtal yéen ndaw ñi may déglu surtout ñu nekk TikTok mooy lu ngeen mën ci nekk wayak fecc ak dof dofloog yuuxoog TikTok beeg golo golo loog yëpp na ko xam-xam lal gis nga nit lépp lu muy def da koy teg ci xam-xam booy dof doflu sax na nekk dof bu am xam-xam ci dof doflu booy fen na nekk ku mën a fen ci xam fen na doon xam ci yow booy wax dëgg na nga nekk ku mën a wax dëgg ci xam-xam lépp lu nit def ci àdduna xam-xam moo koy lal sàcc sax day am xam-xam booy sàcc na nga nekk sàcc boo am xam-xam ci sàcc ndax lépp looy def te tegoo ko ci xam-xam musiba lay jur te benn nit bu yàqoo ci aw askan askan wi yëpp mën na yàqu mooy benn microbe xam nga microbe lu ndaw la lu invisible la microbe bu kenn mënu koo gis bët du ko gis waaye bu nee saraax ci biir deret microbe bi bu duggee ki deret bi yëpp lay jàpp noonu mu tuutee ni mu ñàkkee solo ba bët mënu koo teg bët microbe boobu bu duggee ci sa yaram sa yaram yëpp lay jàpp day ndaw ci deret ji dugg fépp jàpp deret yëpp tàngal sa yaram sa bopp yi metti ngay miir di wàccu doo mën a dem sa yaram nagam pourtant benn microbe la bu ndaw la boo xam ne bu ñu ko tegoon ci ko taabal ji mënu koo gis sa bët mënu koo gis waaye mën a saraax dugg ci sa yaram yàq lépp lu tax parce que loolu yàlla dafa am lu ñu fi jàngale benn doomu aadama ci adduna bi humain waxuma Sénégal rek de adduna bi yëpp bu ñu fi amoon Hitler xaw naa rey adduna bi Hitler benn nit la Hitler Hitler xaw naa taal adduna ci benn nit moo tax nit du xepp boppam loo doyee di doyee di loo ñàkk-ñàkk loo nekk ndóol loo nekk pauvre ak loo ñàkk-ñàkk-ñàkk xam-xam xamal na yow bomb bu taxaw nga ndax benn nit nga boo xam ne mën nga taal àdduna ak li ci biir taal ko ci côté defar mën nga koo taal ci côté yàq kon bul xeeb sa bopp lépp looy def natt ko te na nga def ci xam ba noppi nga def ko ci responsabilité maanaam lii da xam naa ko damay jóg def ko te jëf ji kenn newuma defal li defal la maa koy def ci sama coobare bopp gannaaw ba ma xamee jëf ji lan moy atay waye waaye bama xamé jëf yi lan lay jur ëlëk ci sama dund fi waye lan lay jur ëlëk ci sama dund ci kanam sama borom muy responsabilité muy kenn ku ci nekk xamna mukallaf nga kenn waru la wax jógal ak togal ya wara a setantal xool ci sa xol ak sa xel ak sa xam-xam ba jàpp bo jappé jëf bu la dëwul nga tek lolu nekk lo xamne ne bëgg nañ diko ko ci ëtt yi ngir ndaw ñi nga xam ne ñoo ëpp ci askan yu tey Sénégal boo jëlee population sénégalaise bi 67 68 pour cent téeméer boo jël juróom-benn fukk ak juróom-ñaari ay ndaw lañ yoo xam ne amuñu fanweeri at ak juróom 17 millions de sénégalais yi ñi ci ëpp ay ndaw lañ gannaaw ndaw ñi jigéen ñee ci topp ëpp ci ndaw ñi amuñu boo boolee góor jigéen ci ndaw ñi amuñu fanweeri at ak juróom. téeméer boo ci jël ci ci 17 millions yi téeméer boo ci ne sëq tibb téeméer bi juróom benn fukk yaak juróom-ñaar ya ay ndaw yu amul fanweeri at ak juróom lañ kon ndaw ñi yéen réew mi ndaw ñe Sénégal Sénégalu ndaw ñe réew mi ndaw ñi ñoo ko moom ci démocratie ci lépp ndaw ñee ko moom ci économie koom-koom ndaw ñee ko moom ci démocratie ndaw ñee ko moom parce que ñoo fi ëpp ci liggéey ndaw ñee ko moom parce que ñoom ñoo war a jor liggéey bi kon ci responsabilité tabax réew mi tamit kenn xaarul suñu papa yeeg suñu yaay yeeg suñu maam yi réew mi ndaw ñi ñoo koy tabax yéen ndaw ñi may déglu yéen yéen a war a tabax Sénégal su ngeen ko tabaxul chinois yi ñoo ñëw ngàcc ko yóbbu su ngeen ko jógul tabax turki yi ñoo ñëw ngàcc ko yóbbu su ngeen ko tabaxul tubaab français yi ñoo ñëw ngàcc ko yóbbu su ngeen ko tabaxul russe daal daan jël géej gi japonais yi espagnol yi kenn ku ci nekk napp géej gi yëpp yóbbu yow nappkat bi may déglu yow mi nga xam ne yaay baykat bi soo ko tabaxul indien yi daal di jóge Inde ñëw Sénégal jël suuf sëpp seen india bay pomme de terre yeeg bay yëpp yëkkati jaay wala ñu yóbbu seen réew jël phosphate du ICS bi yóbbu Inde dem bay yow ndaw gi laay waxal man mag ñi waxuma ak ñoom yitteluñu ma awuma soxla ci mag ñi ndax réew mi bu tollee fii mag ñee ko yàq mag ñi nekk ci réew mi ñoo yàq Sénégal loolu dama ko gëstu de façon très fine topp ko ba bu sës naroon ci bind ab jukki waaye bu ma ko bindoon tey musibaam ndax Sénégal du réew mu toll ci ay bind réew mu toll ci ay wax la moo tax moo tax bindu ma ba léegi ñu bari nañu ma il faut nga bind waaye su ma bindoon tey bu subaa ñu suuli ma dañ rey ndax ñi fi bind ñëpp rey nañ leen ku fi bind rey la xanaa ngay xanaa ngay bind di xalamal nit ñi booy xalam moom ñu fecc waaye boo leen waxee dëgg bu subaa nga fanaani barzaq loolu nag tolluwaay la. duma ko sikkee sénégalais yi seen taarix moo agsi foofu seen histoire réew moo ak foofu sénégal moo développé gul moo suqalikee gul moo tax ñu war a yëkkati niveau bi fexe ba ndaw ñi surtout xam ne xam ràññee am responsabilité man di def choix ba ñu àgg ci yenn niveau yi ñu commencé bind Cheikh Anta bind na ba tey tey Cheikh Anta yéen ñii di ma déglu ku ci ëpp ku ma ci laaj ndax liir nga Cheikh Anta téeméer boo ci jël ñaar ñoo ko liir te li Cheikh Anta kenn mësu koo bind ci àdduna àdduna ba mu daj li Cheikh Anta def kenn mësu ko def waaye sénégalais yi xamuñu sax lu Cheikh Anta bind biñ ne dañ fiy bind histoire du Sénégal caw la ca am ci la Ibader ca am dee professeur Sankharé bind na fi ñu tam ko dëmm lekk ko te xamuñu lim bind ca la jógee dee réew mi aada woowu ñu bind ak liir gis naa démb xaw ma ñu wax ci benn livre tax tax diisul asxaaf bu imaam loo bind ña nga werante kenn ku ci nag maa ngi lay déglu ña ngay werante dafa wax li tasawuf kenn naan kër kër ma xool leen kenn ku ne yaa ngay defaat ak fi réew mi toll. ñoom ñay défendre imam Ahmed Lo ñoom heure bi waroon leena fekk ñu solo ay fanta yor ay lacrymogène yor ay yat taxaw xeex ak dictature bi ci réew mi au lieu que ñu jóg ci xeex boobu ñoom ña ngay lijjanti ka ko ku xas tasawuf ak ahlu sunna wal jamaa ak livre bu Ahmed kha Ahmed Lo bind ki taqdisul asqaaxi masalikul jinaana ki kifaayatu raay bi ñoom ñu ngi ci yoy de fi réew mi tollu ci pétrole ak gaz ak ndol jafe jafe-jafe fàqir yi nek ci réew mi au lieu que ñom ñëpp ñu wat seen sikki ni jox taxaw altéru ba taxaw ñu xéx ak Macky Sall mi fi indi góor jigen bi ñu bàyyi ko fa sasawu ak salafis ki mo wax le ké moo wax le nga xamné réew mi dafa fébar wop gi nek ci réew mi mi ngi nit ñi da xamu ñu ay priorité jamono bi ñi werante Ahmed Khalifa Lo wax le tire be wax le nar be mo bind li kefe fee la ko jele ki li la netali tasawuf dañu gëm li lii gëmul le chinois baa ngi teg ay centre commercial ci bi ndakar di jaay def ci posam yóbbu Chine bato chinois yaa ngi ci geejgi nap jeen yep yëpp yóbbu Chine indien yaa ngi jël suuf yëpp ak phosphate bi yóbbu Inde turki yaa ngi yor aéroport bi ak tabax bâtiment yep yóbbu dégg nga français yaa ngi autoroute bi yep jamono bi ngeen tok yéen di wérante tasawuf ak sa salafis ak seen yu fa fayda ya nga xamne kenn amul amul bop amul genn ndax bala nga ne naam ne bala ngay wax ay tasawuf ak salafis ak ay yu kenn xamut nga am boo ngoonee boo wooree nga am loo doge te loolu liggéeyee koy maye te liggéey boobu mi ngi ci mbell yi nekk ci réew mi pétrole beeg gaz bi autoroute yeeg suuf si mbay meeg napp geeg yépp ñu mën koo téye ba pegal ko suñu bopp ñuy soog a lijjanti kenn ku nekk loo gëm ak loo doon li ñu war a mooy li ñu def ba am lu lekk moom suñu bopp réew mi tabax ko ku koy wax kenn du ko wax mu jàpp ci ñu ngi caaxaan kenn ku ci nekk naan maa la gën sëriñ kay daan kere ta la ngeen war a yittewoo yëpp kenn yittewoo ko loolu moo tax may wax sa xol day jeex kenn ku ci nekk naan kii ma wax le kee ma wax le Sëriñ Tuuba ma wax li Alaaji Maalik nga wax le Imaam Ahmed loo wax le euh, da nga naan ñii mais ñii mais c'est pas possible il faut que ñu waxante dëgg aussi mbokk yi il faut que ñu waxante dëgg. loolu moo tax tey ma def sama premier waxtaan ubbi ko ci TikTok bi yéen waa TikTok maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar di leen ñaan nag ngeen may ma nopp ñu teew teewlante ñun ñëpp di waxtaanante ngir gindugante ndax dafa jot yéen ndaw ñi nga xam ne yéen ëpp ci réew mi réew moo gis ci àdduna ndaw yaa ko tabax réew moo gis ci àdduna Amérique ba ñu tollee ci ñu noot leen anglais yi noot leen français yi noot leen ñu séddoo Amérique ni ñu séddoo Afrique tey jii noonu lañu séddoo Amérique lay moo amul lay yi fi nekku ci ay gàmmoo ki màggale ki cant ki sëriñ yi fi newul foofu bu nekkoon foofu kon dem nañu bu yàgg loolu ay tappale la yëf yaa ngi ci xam sa bopp xam sa wareef nekk li nga doon gëm sa réew gëm sa bopp gëm li nga gëm moo xam yàlla la moo xam loo xam nga gëm ko sama yoon nekku ci ku nekk na nga gëm lu la neex waaye nanga gëm say ñaari waaju gëm sa réew gëm sa bopp gëm sa xam-xam ak sa doole pour tabax réew mi man ak yow ñu ànd tabax réew mi ndawu Amérique bi noonu la tabaxee Amérique am nit ñu seddoo Afrique Sénégal France ko jël ñu ne Gambie anglais ko jël ñu ne Guinée portugais portugais ko jël ñu seddoo ko dagg balkanisé dagg Afrique kenn ku nekk jël noonu ñu ko caxat caxatee Amérique jee ngeen gis tey Joe Biden yore ko noonu lañu ko caxat caxatee woon France da cee amoon wàll espagnol yi am ci wàll anglais yi am ci wàll kenn ku ci nekk am foo tippo waaye ñoom Amérique naka la def ñoom ba futtiku xeex ak seen ñi leen doon noot mooy ñi noot tey Afrique. ñoom américain yi naka la ñuy xeexee ba génn ci mbuumu njaam ba tabax seenum réew tey ba nekk la première puissance du monde mooy réew mi ëpp doole ci àdduna bi fan lañu jaar ba taxaw foofu xeex ña ko def ay ndaw lañu ñoo taxaw futteeku xeex ak anglais yi xeex ak français yi xeex ak espagnol yi ba génn ñëpp Amérique jël jël pàcc pàcc yañ séddoo woon boole ko yëpp daf ko mennum réew mu nekk réew mi ëpp doole ci àdduna ci wàllu armement réew mi ëpp doole ci wàllu àdduna ci wàllu koom-koom réew mi ëpp doo nga xam na tey bu sokkatee ñëpp soj Amérique loolu rayukaay la ci ñun ñu toog naan sëñ be ñaan ak sëñ Tuubaa réew mi mu sëñ Tuubaa ko moom ak alaaji Maalik nga wax léegi maam li maam laaye puus jéeg-jéeg kee naan tashxir tashxirul xaw ma lan tasdixul ixsaas ki kee naan masaalika kër yi ngeen nekk yëpp mënu leen cee jënd warga wu ngeen attaaya masaaliku ji naan mënoo cee am warga kii faaytura ay bi ne mënoo ci jënd mburu tax taqdisul asqaaf mënoo cee jënd suuk suukar bu suukar café mënoo ko ci am wax werante rek ba ba dugg boîte vocale mais luy tabax ni mi lu lay may nga jënd ci mbubb am ci kër takk ci jabar am ci ay doom di xëy di liggéey weer dee nga am loo mën a fayee loola dundal sa njaboot yow ndaw mi may déglu xanaa li may wax daf laa jomm yow sénégalais bi may déglu yow nekk tiktok am vingt cinq ans trente ans ba trente cinq ans dëkk sa kër waajur yi mënoo takk jabar ndax amoo loo ko yore yow ki sa bopp amoo loo lekk sa papa lay dundal ba léegi mënoo dem fenn amoo liggéey amoo xëy kër ak suuf moom xalaatoo ko yow defoo ko ci sa bopp bi te pourtant da nga ko war a xam say morom yu am yow 25 ans 30 ans Amérique ñoo am seeni kër France ñoo am seeni kër Espagne sa morom am oto am lépp di wër àdduna bi te du laaj visa lu tax yow loolu jomb la pourtant Amérique bi nga xam ne niñ la def yow Sénégal mooy noot la colonisation noonu lañu coloniser woon Amérique dañoo jóg xeex ak buuru Angleterre bi reyanteeg moom ba colonie bi dañ ñu moom seen bopp déclaré seen indépendance créer seen ay état def jonction tey ñooy réew mu ëpp doole ña ko def ay ndaw lañu boo demee ca cimetière ni Washington ya boo fa demee da nga fa fekk la ñoom ñëpp ñu tëdd ñoom ña doon xeex ndaw ña ñoom ñëpp a nga tëdd ñii dund na ñii dee nañ waaye am nañu ndam seen way seen way du mas a fay àdduna boo demee Amérique ñi ngi leen di gañ ba ba léegi Sénégal nag boo ñëwee ñaan suñu mag ñu baax ñi suñu maam ñu baax ñi suñu patati patata mag ñi bu ñu baaxee te nekkatuñ fi lu muy jëriñ baaxu mag ñi lu gisuñu yoon ñun mag ñu baax ñi ànd après bu ñu baaxee après dañu fiy nekk di diitaroo mag ñu baax ñi mag ñu baax ñi baax nañu ba dee ña nga sàq toog di xaar yàlla kenn duggagul àjjana du yonent bi du kenn ñëpp a toog di xaar ban sàq waaw baaxu mag ñi ñun naka la ñuy soqali baaxu mag ñi naka laa ciy amee mburu bu ma ndogoo ci kanam baaxu mag ñi naka laa ci amee potu fonde bu ma naan ngoon mënu ma ko ci am mag Serigne Touba lu mu baax baax baax baax baax Alaaji Malik lu mu baax mag ñi ngeen di wax El Hadj Omar rek ñu baax baax baax seen baax googu su ko yóbboo ci boutique bi boutique bi du ma ma ci jox mburu su ma ñëwee naan ko Serigne Touba daa baax ak Alaaji Malik rek mag ñi baax day taxaw di ma xool rek su ma noppee ne ko mburu laa bëgg mu ne ma dugal sa loxo sa poos su ma dugalul sama loxo sama poos du ma am mburu fonde bi jaay kotu fonde bi lu Serigne Touba baax ak Alaaji Malik du ma jox fonde bi kon mbaax gi lu mu ñu jëriñ lan la ñu jëriñ yeewu leen te nekk ay nit dama bëggu ñu yeewoondoo nekk ay nit yeewu nekk ay nit di jëfandikoo suñu xel mi ñu yàlla jox bañ koo jël def ko xelu bàyyi ma xelu dof di dof dof loo ko wax yu boo amul bopp amul génn tardeel sa bopp ci ay kasaw kasaw yu amul njariñ ay làmba ki mbëre ki ay musique ki ay Youssou Ndour ki Wally Seck ki yëfi tappale yooyu nga xam na ñoom ñëpp seen musique bi ñuy def taxul ñu am li ñu am la ñuy def ci suuf waxuñu leen ko tam mooy trafic de faux billets trafic de cocaïne trafic d'organes ci yooyu la ñuy dox ñoom ñëpp ngir mën a am alal ndax l'industrie musicale sénégalaise kenn mënu cee jënd ñaari kaña musique Sénégal yi musique bi du Youssou Ndour du kenn kuy way Sénégal goo xam ne way wi ngay way mën nga cee jënd ñaari kaña ci pax ndax amul xaalis yéen ñi may déglu xam ngeen ko amu ci kenn kuy jënd benn disque Youssou Ndour du fi génn disque ba ngeen jënd ko kenn dafa génn dis da ngeen koy pirate disque bu fi génn way ngeen ngeen partagé ko pirate ko tasaare ko Sénégal amul industrie musicale musique bi amul xaalis bu mën a may Youssou Ndour mii muy dund li muy dund ci luxe Youssou Ndour amul way wu mu way wu ko mën a may mu dund ci luxe amu ko amul benn waykat bu nekk ci réew mi du Wally Seck du kenn li mu yor ci train de vie ay appartement wu six cent millions ay oto yor deux cent millions Wally Seck la muy def waxu leen ko du musique bii moo ko may xaalis ana ku jënd CD Wally Seck mënu leen ma limal cinquante mille sénégalais yu jënd CD Wally Seck bu ki nekk dix mille wala vingt mille mënu leen ma ko limal amut kon Wally sekk fan na jëlee xaalis wax leen trafic de drogue trafic de cocaïne trafic d' organe seeni mafia lañ yor ci suuf c' est des narcotrafiquants di ko mbubboo way loolu mooy li am dañ leen na nax yéen ndaw ñi lay waxal moytu leen Wally Seck ku Youssou Ndour waykat yi ñi ci ëpp ay trafiquants lañu nga dem ci làmb ji ñu nekk ay trafiquants de faux billets gis ngeen démb match bi li xew Sénégal Mozambique ana biye yi ñoom nguur gi ba ñu déggee ne Ousmane Sonko yi gane yi dem ci stade ba bu ñu demee yuuxoo fa Macky Sall yëkkati Ousmane Sonko ñu dem jënd billet yëpp téye ko lay saw ministre bi yor euh, habitat nga xam ne mi ngi fédération sénégalaise de football nekk maire Kaffrine li ci ay post mat na dix turian Ablaye Sow njublan dem ñu téye billet yëpp ak waa fédération sénégalaise de football ministère yi ñu téye billet seen biir directeur des domaines bi ñu nommé barki démb ta sant cinq mille billets ñu nommé le directeur des domaines commencé goo liggéey di may ay billets foo ko jëlee fan la jëlee xaalis kooku ñu ñu régenté billets yëpp tey billets yëpp waa APR benn bokk yaakaar sport bi sax léegi dañ ciy wane seen i jëfin ñoo ñaawi jëf jël bi yi dem di ko may seen nit pour ñu dem ca sàdd ba ngeen boycotté football bi kenn demul donc très bien nit da ngay am fulla waaye xam naa weeru koor goo tax demu leen de xiifa tax demu leen waaye ni ngeen ñàkkee jom bu du woon weeru koor kenn du leen fa jiitu yéen a ngay buuxante noonu ngeen boycotté football bi noonu ngeen war a boycotté match yeeg grand théâtre yeek musique yeeg concert yeeg Wally Seck yi fi réew mi toll ci ay jafe-jafe yéen ndaw ñi 67 pour cent sénégalais yi ay ndaw lañ yéen moins de 35 ans amu leen xëy amu leen liggéey mun leen a am ci pàkk yi ñu dagg Ndakaar ay terrain 80 millions ci biir aéroport bi nga xam ne mooy bu njëkk bi ñu tuxal ko yóbbu njas Macky Sall ngay dagg suuf si jox na ki sëriñ ci musiciens yi jox ci ñi yore presse bi. jox ci magistrat yi yu tëj ak tëj homme d'affaires yi ñoom ñoo koy séddoo yéen ndaw ñi mënu leen ci am ndaw ñi may déglu laal la wax mënu leen am ci suuf si ñuy séddale ci réew mi kër yi ñuy séddale ci réew mi mënu leen ci am alal yi ñuy séddale ci réew mi di ko jox Serigne Seck Youssou Ndour rek El Hadj Ndiaye ak 2STV ñom ñoom Bougane ñooñu yéen mënu leen ci am du ngeen ci te pourtant kuy fal yéen ko fal yéen ëpp ci réew mi. réew mi président bi fi war a nekk dafa war a nekk ndaw comme yéen ndax démocratie la ñu wax te démocratie mooy la loi du plus grand nombre mooy lan mooy bu ñëpp dajee dañuy voté ñi ëpp ci askan wi bu ñu voté la ñu voté moo am te yéen ndaw ñi yéen a ëpp ci askan wi loolu moo tax Macky Sall na du ngeen voté jël seen carte d'identité yi bind ci ginnaaw ne mënu leen a voté ndax lan day bañ ngeen voté parce que xam nañ ne yéen yéen a ëpp ci askan wi te bu ngeen bindoo musiba am ndax moom ak ñi mu àndal ñëpp kenn dootu fi falu ndax génn ngeen ci ñoom ba set wicc motax li 6 bi tay le 25 fi ak fukki fan insha allah rabbi dañu commencé bindu bi yéen ndaw ñi dama bëgg ngeen na ñokket yeen ñi nekk tiktok ku ci amul carte d'identité demal uti ko ligi baña xaar ndax bindu bi mëno wo def te amuloo carte d'identité carte d'identité ngay yobbu pour mëna bindu so amul carte d'identité mëno bindu demal uti carte d'identité legi fexé ba mu gaaw a fi ak fukki fan nga jot ko dem bindu ju ci commission gox yëpp dana am ay fu ñuy bindee commission bu ci accès na daal leen wax naka ngeen di def yow mi am carte d'identité ba noppi ca ginnaaw carte d'identité ba ñu bind ci boo ko wëlbatee ca ginnaaw ga ñu ne mënoo voter nekkoo ci fichier bi c'est normal parce que jamono bi ngay am carte d'identité fekkul ñu ubbi bindu bi moo tax boo yore sa carte d'identité da koy jël fii ak fukki fan le 6 le 6 avril du 6 avril au 6 mai parce que Macky Sall moo ko cëkkal mënoon na koo def ñetti weer wala juróom-benn weer loolu la yoon wax Macky Sall jalgati yoon ne man duma def li yoon wax code électoral bi moo ne ko six mois lañu war a ubbi bindu Macky Sall lànk ne duma def li code bi wax li yoon tëral duma ko def li ma bëgg lay def mooy cëkkal ko def ko ci benn weer ba ndaw ñi duñu mën a bindu ndax ndaw ñi bi ñu bindoo musiba am ndax ndaw ñi jubluwuñu ñu ànd ak nguur loolu moo tax mu jël ab décret signé ko nañ ci juróom ci weer képp la may ñi bëgg a bindu bindu ñi bëgg a soppi seen bindu ñi bëgg a dégg maam tuxal ñu am ay erreur ci seen carte ñu soppi ko benn weer te yoon na juróom benn weer moo tax yéen waa TikTok yéen lay waxal jóg leen ngeen uti carte d'identité ku ko mustaam ki nga xam ne amagul fukki at ak juróom-ñett te le 24 février 2024 mooy bisu élection ba dana ko fekk mu am jur 18 ans moom tamit dafa war a uti carte d'identité léegi dem bindu ji yoon may na ku matagul ku majeuragul amagoo fukki at ak juróom waaye bis bi ñuy voté muy le 24 février 2024 fii ak 11 mois dana fekk nga nekk majeur am 18 ans yoon may na la nga jóg uti carte d'identité léegi le 6 avril bii ñu jëm weer wii le 6 ci la ñu tàmbalee bindu bi su fekkee sa carte d'identité génn na fi nga dem yobbu ko ak sa certificat de résidence koñ ba nga dëkk yóbbu ko ca commission ba ñu bind la ci liste électorale yi nga mën a voté mooy benn ñaareel bi mooy ki nga xam ne am na carte d'identité waaye ca ginnaaw carte d'identité ba dañ caa bind na yow nekkoo ci fichier bi maanaam nekkoo électeur bindu woo mënoo voté da ngay jël sa carte d'identité boobu ngay jël boole koog sa certificat de résidence koj ba nga dëkk maire bi moo ko joxe wala chef de quartier bi nga dem ca commission ba buñ ko ubbee le six nga dem bindu ji yow ndaw ñetteel bi mooy ki nga xam ne dafa bëgg a tuxal bëre bu bindukaayam am moom am na carte am na carte électeur waaye tuxu na fa mu dëkkoon dëkkatu fa wala boog fii ak yi di ñëw day tuxu dem feneen foofee nga xam na fa lay dëkk tamit am na ay bureau de vote kon day jóge fii day jóge Touba dem Dakar parce que Dakar lay dëkk léegi na dem Dakar quartier ba mu dëkk ba mu dem ñu jox ko certificat de résidence wala quartier ba ñu jox ko certificat de résidence ci chef de quartier ba mu boobu le 6 mu dem ca commission ba da leen kat damay tuxu fii laa dëkk wala fii laay dëkk fii ak ay weer ndax du ma voté Touba Dakar laay voté kon damaa bëgg ñu bind ma fii Dakar. kooku mooy changement de lieu de vote ngeen dem defi ko mooy ñetteel bi ñeenteel bi mooy ki nga xam ne moom am na carte d'identité ak carte électeur wala mu am carte d'identité rek lépp réer amatu ko dafa réer da ko réer kooku li muy def mooy day uti extrait de naissance ut li nga xam ne mooy certificat de résidence ut li nga xam ne mooy euh, mooy euh, timbre bu jar dix mille francs bu jar ñaari junni timbre bu jar ñaari junni dem police def déclaration de perte ne kat sama këyit dafa sama carte d'identité carte d'identité dafa réer donc day jël ñett lii lay boole day def déclaration de perte police bi da koy jël jënd timbre dix mille francs ñaar ut certificat de résidence ci mairie bi wala ci chef de quartier bi ñett ut extrait de naissance boo xam ne matul 6 mois muy ñent ñent yi lay boole le 6 bii bu ñu ubbee mbindu mi mu dem foofee bindu ñu defal ko carte d'identité ak carte électeur boo xam ne day génn ngir bu 2024 le 24 février mu mën a est-ce que li may wax leer na yéen ndaw ñi laay waxal de yéen waa TikTok ñaata ngeen ci TikTok sax yéen a ngi ci 3400 actuellement 3400 yu may topp ci TikTok yéen laay waxal. lii may wax ak yéen nag Macky Sall la ko waroon def ak Antoine Diome ndax yoon moo leen tënk ci code électoral bi nag bu ñu dëgmalee ay élection dañoo war a def publicité wax ko ci télé Youssou Ndour bi wax ko ki tele yeeg wax ko ci journaux yi wax ko ci rajo yëpp waajal askan wi ne leen kat tëng tëng tëng tëng tëng tëng tëng ñoo ngi jëm ci ay jongante muy ay élection dañoo bëgg ndaw ñeeg bag ñeeg jigéen ñi kenn ku ci nekk kat na nga waajal sa bopp uti kayit wii ak way ak way ak def ko ci afficier yi panneau yëpp loolu la code bi wax de yoon droit moo ko wax mais Macky Sall nee du ko def moo lànk ndax day tricher njuuj njaaj ki la dëkk moom ak Antoine Diome loolu moo tax ma di ko defal ma man ñii moo tax ma di ko def au ma télé lii TFM du ko wax Sen TV du ko wax Walfadjri du ko wax amul benn télé buy wax lii may wax te dañoo voté ci budget bi muy alalu réew mi ay milliards. pour que bu jotee xibaar bi ñu xibaar ko askan wi mu jàll ci télé yeeg rajo yee fépp ak ci journaux yi ci panneau publicitaire yëpp ñu def publicité ba nit ñi mën a xam seen ay àq ndax dañu ne nul n'est censé ignorer la loi buñ la jàppoon tey ci loo xam ne waru la nga def ko ñu jàpp jàppale dina tëj nga dem ci juge bi ne ko ah man de damaa xamul woon juge bi daf lay wax ne la man toppatoo ma ko xam ko xam république bi dañ koo tëgg ci tëggin woo xam ne dañ ne ñëpp a war a xam kuñ ci jàpp nga def loo xam ne defuwul du aw lay ci kanamu àttekat bi nga naan ko xaw ma woon ñàkk xam gi ci yow la waaye juge bi moom danaan la dangaa waroon a xam loolu mooy principe de droit la nul n'est censé ignorer la loi comme yow loi bi mënoo ko saña baña xam da ko war a xam waa léegi ki nga xam ne moom mooy tëggalu loi bi wala moo koy saytu muy nguur gi ñu tëgg ab loi ci code électoral ne ko bu ñu jëmee jublu ci ay jongante muy élection dangaa war a yëgle def ay xibaar ba askan wi xam li leen war lu leen warul moom mu taxaw lànk ne du def loole moom Macky Sall ak Antoine Diome nee nañ du ñu yëgal askan wi seen i wareef yi nga xam ne moo yoon leen yoon moo leen ci tënk ci ñu xamal askan waa ki war a xamal askan wi su xamalul askan wi est-ce que askan wi amul lay taxaw ne man xaw ma taxaw fipp génn na man élection sax dama koy dàq du fi am élection du am ndax mënumaa voté ndax lu tax mënumaa voté mooy li ma waroon a xam ci wàllu yoon ci wàllu loi yi ak li nga xam ne yoon moo ko teg nguur gi ngir mu xamal ñu ko yëgal ñu ko ñoom ñu taxaw lànk na duñ ñu ko yëgal dañuy génn fipp taxaw ci kaw mbedd mi moo tax ndaw ñi seen fipp ngeen fipp dafa tegu ci yoon fipp génn ci mbedd mi manifester dafa lu jaadu la parce que liñ seeni wareef lañ leen di xañ seen ay àq ak seen yelleef yoo xam ne charte réew mi leen ko mooy muy constitution bi ak loi organique bi ak loi yi nga xam ne ñoom ñoom lañ tëgg ci réew mi muy loi yii di code pénal di code de procédure penal di code électoral ak yeneen yeneen i loi yoo xam ne yu dul jeex la yëpp Macky Sall teg ci tànkam di ko nappaaje di ci def lu ko neex kumba am ndey kumba amul ndey moo tax jóg leen ngeen fipp yéen ñëpp ñëpp war ndax réew mi doxatul ci yoon yaa ma neex lay dox ak li ma neex comme noonu la Macky Sall yi doxal bu ñu demee ci am réew ba réew dox ci yaa ma neex di dox ci li ma neex rek mooy am ko ànd ak man mucc ko àndul ak man kaso wala bàmmeel mooy sa place ci réew mi bu ñu demee ba réew toll foofu te ñoom dañu koy def ci jëfandikoo lu leen neex ngir mën a am seen bànneex yéen ndaw ñi laay wax kenn ku ci nekk na nga jóg taxaw fipp te réew mi toll na ci tolluwaay boo xam ne yoon amatu fi réew nag bu ñu demee ba yoon amatu fi kenn ku ci nekk yaay sàmm sa bakkan ku ku kenn ku ci nekk ci yéen yaay sàmm sa bakkan na ngay sàmmee sa bakkan yaa ko xam lépp lu lay may nga sàmm sa bakkan mën nga ko jëfandikoo lépp aw mën dama bul jël lii de lépp loo xam ne gànnaay la te boo ko yëkkatee téye ko mën a sàmm sa bakkan bii comme ni la ko yàlla sàmmloo jëfandikoo ko ndax foofu la réew mi toll ndax ci ñu teg ci bopp réew mi mu waroon a takkoo ak yoon sàmmante ak yoon sàmmant moom ci boppam mu sàmmante ak yoon ñi mu yilif ci gouvernement bi ñu sàmmante ak yoon mu doog a wëlbatiku ci askan ne leen man mi leen yilif dama sàmmante ak yoon ñi ma yilif ci gouvernement bi dañoo sàmmante ak yoon moo tax may ñëw ci yéen ci askan yi di leen woo ci ngeen sàmmante ak yoon comme ñun ni ñu sàmmante ak yoon waaye deful loolu dafa jalgati yoon ñi mu àndal jalgati yoon ba noppi nag ñun mu bëgg ñoo teg ci yoon woo xam ne bu doon sax yoon wi nga xam ne moom la askan tànn muy constitution bi ak yoon woo xam ne moom la loi yi wax mais moom teguñu sax ci yoon woowu daf ñoo teg ci yoon wi ko neex moom dañoo teg gi yoon wi nga xam ne moom la réew mi rëdd bëgguñoo jàllale ci li ko neex moom yoonu boppam moom Macky Sall moo tax ñu war a jóg fipp ku am jaasi utul jaasi ku am yet utul yat ku am fetal utul fetal lu waaye mën a am pour sàmm sa àq ak sa yelleef bi la constitution yu may Macky Sall bëgg la koo xaj uti ko taxaw jàmmaarloog moom ndax réew mi doxatul ci yoon li may wax nag dama koy wax parce que réew mi doxul ci yoon réew muy dox ci yoon ñu sàmmanteeg charte réew ma ka ko jiite sàmmanteeg moom ña nekk ca nguur ga sàmmanteeg ñoom ñëpp tegu ci yoon su amoon ñu ñëpp ñu tegu ci yoon ay républicain lañu ay homme de loi lañu ñu respecte loi lañu ñu respecte ay charte lañu principe yi nekk ci démocratie bi moom la ñuy xeex mooy le respect de la légalité et de l'état de droit comme Macky Sall toppatoowul ay droit toppatoowul ay yoon da lay fekk sa kër mun la doo génn sa kër tëj la fa nga génn di wuy gi tribunal mun la fii nga jaar wala fee nga jaar nga ne man fu ma neex laa jaar ndax yoon ma may ma jaar fu ma neex mu fokkati toj sa oto pompe la gaz na génn la dugal la ci otoom bu ko neex pamti pamte la xotti sa yëre yëbb la sànni la ci biir tribunal bi nga wax li ngay wax génnaat na da ngay ñibbi mun la doo ñibbi maa lay yóbbu par force nga doo ma yóbbu sama oto ngi ni maa lay déposé sa kër par force loolu xam ngeen du yoon amul benn texte de loi ci réew koy wane amul benn charte ci réew mi buy maye loolu am loolu jaay doole la noggatu la nit ñi sànni ay lacrymogène rey biñ yoon tëj dóor